d'abord le président Bassirou Diomaye Faye qui a bien élu, très bien élu, et qui suscite beaucoup d'espoir à l'endroit de la population sénégalaise di wax ne euh, li si li ëpp si askan wi di xaaram d'abord mooy espoir et ñu jàpp li nga xamante ne moom la ñuy njëkk d'abord euh, seetlu mooy d'abord la parité gis nañu ne jigéen ñi néew nañ ci loolu et euh, je pense que ça a suscité beaucoup de débats euh, je pense que fi Sénégal toll euh, waroon nañ gën a tenir en compte en tout cas la représentativité des femmes amaat nañu beneen information. mais mais la parité ne s'applique qu'aux comme ñu ko waxti euh, euh, c'est non on ne on ne on ne parle pas on ne parle on ne de la parité absolue mais il devait y avoir au minimum ñu équilibré comprenez on ne peut pas concevoir aujourd'hui un gouvernement de trente vingt cinq ministres cinq euh, secrétaires d'État de trente on nous parle de trois femmes ce n'est pas équilibré quatre femmes ce n'est pas équilibré. Que on ne parle pas de, de, de, de, la parité absolue, mais au moins un gouvernement devait être au moins équilibré avec les femmes. Nous des femmes intellectuelles, des femmes très engagées dans, dans, la coalition Bassi Djama est président. Moi, je pense que ça, c'est un quoi. Euh, la deuxième chose, moi, que Temna Sabedege, euh, bon, aussi, c'est des informations, en tout cas, Euh, vraiment des preuves palpables mais si biir gouvernement bi am na si sax benn couple bu si nekk muy jëkkër jabar ñu jàpp ne euh, loolu su dee am na aussi tamit jàpp naa ne du li gën du li gën euh, leneen li nga xamante ne aussi gis naa ko ci mooy que pratiquement les soi-disant hommes du du système que nous sommes donc ont été totalement presque écartés donc ay on a vu du sang neuf des technocrates qu'on ne pas en tout cas si langue politique bi ñu bëgg wax ne loolu bonul mais politique bi nga xam moom mooy wàcc sur le terrain comme l'a si bien dit docteur Cheikh waxtaan ak askan bi imposer li nga xamante ne mooy projet bi ñoo ñu baax na ñu bàyyi leen xel ñu doxal ndax dañuy boole ñaar mooy l'aspect intellectuel c'est pas parce que tu es politique tu pas le background intellectuel pour doxal li am solo dëggantaan c'est l'orientation ki nga xamante ne moom mooy le premier ministre war a doxal maintenant vraiment les projets politiques du président ou de la coalition en général mais suñu jëlee li ñu gis mooy que technocrates am nañ ci dooleel lool et jàpp naa ne aussi tamit loolu si jàpp naa ne di li gën si li nga xamante ne fa la ñu jëm mais suñu waxee ñu waxee ni déjà euh, tous les ministres doivent se euh, départir de leur poste électif loolu déjà li nga wax lay wunduwaat parce que boo nekkee ministre tamit ñu defoon le maire wala député da ngay summi ndomba boobu dénkaane ko kon li ñu la sant mooy liggéey ci gouvernement bi ak politique gu gouvernement bi ba tey rek waaw mais kële non kële daf koy ëpp proximité si askan wi du benn xam nga tey ñooñu nga xam dañoo war a bàyyi seen poste électif yi mën nga leen compter à doigt man mën naa citer je pense que su ma juumul ay biram su dee boo tu peux les citer à doigt par par euh, euh, euh, vraiment à à ils ne sont pas nombreux dañoo néew tey boo jëlee askanu Sénégal dans l'écrasante majorité de la population mënuñu la limal cinq à huit ministres yoo xamante ne xam nañ leen si biir trente yi ci gouvernement bi donc c'est des c'est des nouveaux ce n'est pas mal mais baax na aussi ñuy bàyyi xel les hommes politique yow ont les compétences pour fair la job ndax man tey jii ni bu ma gisee euh, ko xam c'est un technocrate tout court ma gis quelqu'un aussi il a les mêmes niveaux d'intellectuel et les mêmes expériences moi je préfère prendre l'homme politique qui sur le terrain qui peut cumuler les deux parce que kooku moom laa yaakaar ne moo gën a comprendre li nga xam te ne moom la askan wi di laaj gis naa ne si nguur ji ba fa dëgg yàlla teniruñ si compte trop maintenant toujours dafay fekk ji lii euh, Ousmane Sonko PM waxoon euh, à la veille des élections présidentielles comme ni mu ko waxee woon à ses camarades de la coalition Diomaye Président mooy que fii pàccoo du fi am c'est pas parce que aujourd'hui tu es membre de la coalition ngay xaar maintenant ay postes ministériels ou autres donc jàpp nañ ne aussi jël nañu li nga xamante ne moom mooy compétence ñu jiital ko mais je répète une fois de plus compétence égale je préfère prendre l'homme politique ndax loolu laa jàpp ne mooy li gën.